sante yàlla suñu boroom julli ci yonentam bu tedd bi sant sallallahu alayhi wa sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñépp ñi nga xamante ni ñoo fi teew mu di samay xariti journaliste suñu mbokki journaliste yi fi teew di suñuy xarit di samay liggéeyandool samay musicien ak samay fans club fii fi teew jigéen ñi ak góor ñi képp ku ci mën a doon ak ci noo taxawee ba may door leen ma di leen gërëm di leen sant di leen témoigner sama reconnaissance ci seen taxawaay ci sama wet ak it seen jàppale booba ba tey gannaaw ba ma toogee lu jege ñetti at nekkuma ci métier bi nga xam ni moom laay def te li ko waral di mbirum wér-gu-yaram maa ngi sant suñu boroom ba mu ma dellu fii tey may ma ma toog ci seen wet di wax ak Merci beaucoup. se reprendre. ci ñetti at yii nag nga xamante nii moom laa sori woon ci sama métier def naa fi lu bëree bëree bëri ndax jàngat naa ci sama métier ba gën ci fexe mën xam lu ma ci xamul woon ndax jàng naa ci instrument bi ñu naan piano ba macha léegi yàlla def na may na ma ci xam-xam ak ay mën-mën jàngat ci it lu wër musique mbirum solfège ak lépp lu jëm ci musique à distance maanaam ci sori bi maa ngi doon def yeneen activité lu ko mel ni gën a yokk sama xam-xam ci kàllaama gi ñu naan anglais waral sama teewaay fële ci réew ma ñu naan Angleterre lu tolloog ay weer yu bëree bëri ci université bu mag boobu moo fa nekkoon Wimbledon School of College gannaaw loolu it à distance maa ngi doon def ci samay activité lu ci mel ni liggéey à distance ak samay collaborateurs sama entreprise gannaaw loolu it dem naa fi màkkatal mu karam ziyaare ji sangu bu tedd bi ci kàttanu suñu boroom ngir gën a yokk doole sama ngëm ak it gën a ñaan suñu boroom gën ko jege it ci sant bu baax di ko tëj rek di xam ne ni gërëm naa suma waajur bu góor lay Bamba Seck ak suma yaay Fatou Kiné Mbaye ci teewaayam naka suñu bés bu ne ndax ñoom ñoo ma jàngal lii ñu naan muñ ñeme coono mën a muñ metit ak it mën a supporter difficulté ci àddina gannaaw ba ñu ma jàngalee ba ma donnee ci ñoom li nga xamante ni mooy way di métier bi nga xamante ni nii moom la ñu ma xamee ko it di njukkal waa Sénégal fépp fu ñu mun a doon ak fu ñu mun a ne waa àdduna rawatina presse sénégalaise ci seen taxawaay boobu ba tey di waxit ni fàttewuma artiste yi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci lim di nga juum ak samay mbokk jërë nga xam ni moo ma may ma dellu si fii parce que pour man loolu moo ëpp solo gannaaw dellu si naa ba gis samay mbokk gis sama askan gis sama réew pour nag sama métier effectivement Euh, fas yéene naa euh, delluwaat ci samay activité même bu dama nekk ci convalescence maanaam maa ngi def samay traitement di continuer mais fas naa gën a jegewaat samay sopp gën jegewaat samay mbokk gën jegewaat sama public incha allahu rabbi waaw euh, musique sénégalaise moom am na ay progression yu bëri ndax à eh, distance xam nga su fekkente ni nii danga nekk retraite ak retraite bu mën a doon dangay gën a am une visibilité ci li xew ndax dangay gën a am temps même bu fekkente ni sama temps moom vraiment daaw ma ko consacré ci ay futilité ndax sama temps daan na ko consacré ci yu am solo yoo xam ne xëy na dinañ ci waxtaan mais tax na nag ma gën a suivre li nga xam ne nii daaw ma am temps bu baax toog di ko seetaan ba tax na it ma gis ci lu bari ci musique sénégalaise gis naa ci ay ndaw muy góor ak jigéen yoo xamante ni nii yu am talent lañu ku leen encadré rek dinañu dem yu xarañ lañu ci seen métier xëy na encadrement lañ leen war a gën a dolli ak it ñu gën a liggéey ndax musique liggéey la musique du fo musique fo la mais métier la quoi c'est une industrie c'est un travail c'est un métier comme ni ngay jëlee sa saak nga ne damay dem liggéeyi man en tout man loolu laa xam ci musique te métier boobu laa xam mag ñi ñu fi fekkit vraiment ñu am ci benn aura loolu lañ ci euh, yàgg def mais am na ay talent ci gàttal ndax gis nga fekk naa fi ay xale yu am ay voix tout à l'heure <laughs> voilà ku mel ni Laycha ah Aïcha sa ça vraiment ay xale yu am talent lañu encadrement moo defee Afrique parce que Afrique malheureusement bokkul ak Europe nga xam ne ñu gisee talent ci xale dañ ko yóbbu mu dem jàngi musique muy waajur yi wala encadrement bi investir jàngal ko musique jàngal ko solfège jàngal ko mu ñuy liyee préparé ko malheureusement xëy na amuñu moyen mais defe naa ku leen encadré dinañu dem mais de manière générale je pense que la musique sénégalaise

suñu tour est-ce que pare ngeen pour may tamit xale yi loxo mooy diversification bu nekk su ma di si kanam. mais bien sûr loolu musique échange la musique du individualisme quoi du individualité yow kenn musique échange la. effectivement je pense que loolu dina ci am solo te defe naa ne taxaw waaye boobu man yàgg naa ko taxaw ñi ngay tudd ci ay artistes yàgg nañ ko taxaw mais man artiste moo sollicité vraiment euh, ma gis genre musical bi neex ma et puis esprit bi aussi pourquoi pas ñu def duo parce que loolu lu am solo la ñuy dem di def ak ñu nekk ci lu am solo la parce que musique aussi mix la mixage la quoi il faut faire la promotion de la mixité dans la musique les échanges pluriculturels les échanges entre les pays c'est très très important parce que mooy tax ñu nekk dëkk boobu xam la yow mi nekk sa dëkk artiste boobu ñu xam ko et puis ngeen def échange loolu mooy musique aussi et puis ak variété de sonorité bi c'est bon. donc Sira Touré de Radio Chine Internationale. bonjour à toute l'assistance. avant de dire quoi que ce ou bien de poser des questions, j'aimerais vous remercier, remercier tout le monde pour la minute de silence à l'endroit de mon papa Ismaël Touré décédé hier. Donc, euh, toute la famille Touré Kounda vous remercie. la question est de savoir est-ce que Kumba prépare quelque chose en anglais, une en anglais, parce qu'il a été apprendre l'anglais à Londres, mais aussi euh, les notes de piano,

la musique, elle est universelle. Et on le peut aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses et à la manière dont fonctionne le monde et les choses, ne pas comprendre certaines langues, particulièrement l'anglais. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, écoute ma fille, au lieu de rester là, pleurer tous les jours, sors de ton trou, allez, va apprendre autre chose. <laughs> voilà, et je me suis dit, ah moi, Londres, Londres entière. <laughs> Et je suis allée à Londres, voilà, euh, même si ce n'était pas évident parfois, c'était très difficile. Mais bon, au moins pour euh, perfectionner mon anglais, parce que j'avais quand même une bonne base, j'ai voulu perfectionner parce que euh, chanter en anglais donne toujours des ouvertures, même si je dois le mixer avec ma langue, mais le chanter aussi dans la, avec le bon accent, c'est très important. Et euh, donc, euh, effectivement, je compte dans mes prochaines compositions euh, chanter effectivement quelques phrases ou quelques textes de cette langue-là. Je pense que c'était ça votre première question. Et la deuxième, c'était euh, le piano, effectivement, c'est mon rêve. Vous savez, moi j'ai dessiné mon retour et pour me mettre de la pression pour guérir et pour revenir sur scène et arrêter de pleurer J'avais dessiné ce piano blanc sur une feuille que j'ai collée sur mon frigo. Chaque matin, quand j'ai déprimé, j'ai dit Regarde ton dessin derrière, c'est ça ton comeback. Allez, va travailler. <laughs> Et du coup, au lieu d'être là à, voilà, à à autre chose, je m'adonnais à trois ou quatre heures de piano ou plus par jour. Et je me disais qu'il valait mieux pleurer en jouant, en jouant du piano parce que ça vient du cœur et ça sort du cœur que de rester là à pleurer. Au moins, j'aurais utilisé mon temps de répit à quelque chose d'important.